الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey salmal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu doole ko xéewal moom ak waa kër ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ñuy ñaax suñu bopp di leen ñaax ñu takkoo ragal yàlla di ko ñaax suñu bopp di leen ko ñaax ñu xam ne ci ragal yàlla boobu rek la ñu mën a amee teranga àdduna ak alaaxira doomu ndey mbokk jullit ñi tey suñu xutba tey dañuy doxantu ci li nga xamante ne nii moom mooy ngëm di al mu'min yàlla mandargale leen ay mandarga yoo xam ne wallahi suñ ko xamoon dinañ ci teg suñu tànk ndax ñiy texe ëllëg ak jàmm di doon àjjana mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm gëm boobu nag balaa ñu ciy dugg dañ koy définir ndax islam moom moo ñu ko définiral mu nekk ay ponk nu ñu xamee islam nu mu amee juróomi ponk ngëm tamit noonu la nekkee ay ponk nekk juróom benn ponk ponk bi njëkk ci ngëm mooy nit ki dafay gëm yàlla suñu borom subhaanahu wa taala tey am na nit ñoo xamante ne gëmuñu yàlla moo tax bu ñu insisté ci gëm yàlla dañ koy dañuy dañ koy nangu parce que am na ñoo xam ne am nañ taxawaayu yàlla existé wul te ay nit lañu comme ñun kon ponk bi njëkk ci ngëm mooy nit ki dafay gëm yàlla mu gëm ne yàlla moom mooy borom moom moo ko bind moo bind ay waajuram yàlla moo koy rey yàlla moo koy dekkal yàlla moomu la war a jaamu noonu la ñuy gëmee yàlla ñaareel bi ginnaaw bi mu gëmee yàlla dafa war a gëm li nga xamante ne ni moom mooy yonent yi yonent yi yàlla yónni yëpp doo ci am différence maam aadama nga gëm yonent yàlla nuux ba yonent yi nga xam yëpp nga xam ne nii ñii yàlla moo ne moo la déclaré ñii ay yonent lañ da nga leen di gëm doo indi différence ci ñoom ñetteelu ponk ngëm bi mooy nit ki dafay gëm li nga xamante mooy malaaka yi bu ñu nee jibril nga gëm ko ak tolluwaayam yonent bi nee na man gis naa jibril ci horizon mooy jamono bi muy dem ci xunt bi di làqatu ba jibril fekk ko fa taxaw na ci bopp xunt bi seen jibril horizon nga xamante ne dafa fees àdduna bi bu ñu nee horizon mooy bopp bi da ngay gis day day nekk si combortal ba tànk bi day day nekk suuf waaye laafi ba ko tàllalee da nga koy xool ba infini nga koy xool jibril moom ak tolluwaayam lu muy tolluwaay ñu ne la mikaayel da nga koy gëm ak ngandaayam jibril mun na taxaw fii ci mbaggam di naaw ba si ak bëgg naaw ñëw ci ci nopp bi ay at la koy naaw yowmal xiyaam ñun ñëpp bu ñu yàlla dajalee ci farankulaay benn malaaka la ñuy toog ndax rëyaayu malaaka malaaka boobu yooyu yëpp nit ki da koy gëm loolu mooy gëm malaaka yi malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy relevé ci yow raqit ak atit nga xamante ne dañuy nekk sa mbagg yi di bind say jëf da nga leen di gëm loolu mooy gëm malaaka yi nga xamante ne nit ki lépp lu muy def rek mu gëm ne am na ay malaaka yoo xam ne ñu ngi ànd ak moom ñu ngi koy enregistré ñeenteelu ponk bi mooy ginnaaw bi nga gëmee yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi nga gëm li nga xamante ne mooy téere yi téere yi yàlla wàcce yëpp yàlla du alxuraan kese la wàcce wàcce na zaburu jox ko yonent yàlla daawda da nga koy gëm wàcce na tawraat jox ko yonent yàlla muusa da nga koy gëm wàccee na injil jox ko yonent yàlla isaa da nga koy gëm alxuraan bi wàccee na ko ci yonent yàlla muhammad da nga koy gëm gëm ak suxuf mooy passage yi nga xamante ne ni moom la yàlla jox ñenn ci yonent yi kon loolu dafay bokk ci li nga xamante ne mooy ñeenteelu ponk nit ki gëm ko juróom benneelu ponk bi juróom juróom juróomi ponk bi mooy nit ki dafay gëm li nga xamante ne mooy allaaxira nga gëm ne allaaxira lu wér la luy ñëw moo tax dafa bokk ci màndarga ñu ragal yàlla sax wa bil axirati hum yuqinuun ñoom allaaxira dañuy am kóolute ne luy ñëw la certitude lañ ci am amuñ ci laam-laame te lépp lu ñu wax allaaxira dañuy gëm ne am na dañuy teg balance bi teg say jëf atte da ngay jéggi siraat da ngay nangam da ngay nangam kooku mooy juróomeelu ponk bi nit ki dafay gëm allaaxira gëm àjjana gëm safara juróom benneel ponk bi mooy bi gën a jafe su suñ duñu la dépendre mooy ngëm do ndogal gëm ndogal bu neex gëm ndogal bu naqari bu neex moom ne yomb naa gëm waaye bu naqari bi moo jafee gëm nit ki dafay nangu ndogal bu neex bi nangu ndogal bu naqari bi li lay dimbali ci ndogal bu naqari nag mooy bu nee cëpp sa kanam bul ci teg baat baat bi ngay njëkk a wax na nekk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla tëjal la buntu boo xam ne seytaane bu ñëwee doo doo la mën a jax-jaxal nga fi nekk naan su ma yëgoon ak wala nangam wala nga ngay xotti sa yére bu fekkee ku génn àdduna la wala wala wala wala kon nit ki bu fekkente ne ndogal bu naqari nee na cëpp ci kanamam rek lu muy njëkk a wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su ko defee yàlla tëjal ko buntu bi nga xam ne mooy seytaane buntu bi mu waroon jaar kon juróom benn yi mooy juróom benn ponk gëm dañ ko war a xam dañ ko war a dañ ci war a taxaw yàlla suñu borom tamit dañu yaatalal tamit li nga xam ne moom mooy ngëm ci saar yi nga xam ne moom jàng nañ ko yàlla jël ngëm tuddee ko saaru lëmm suratul muminuun premier aaya mu félicité ñi gëm mu qad aflahal muminuun texe na ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm buñ nee texe mooy texe àdduna ak àllaaxira ki texe àdduna nan lay xamee ne moom texe na àdduna mooy dunam dafay teey dafay dal te moom yitteem yépp ci jaamu yàlla lay nekk buy liggéey mu ngi ciy xool yàlla jaamu yàlla la koy jàppee buy toog buy génn këram buy buy lépp lu muy def rek da ngay gis ne kii ab julit la boo xam ne léppam mu ngi ciy soraale borom bi subhanahu wa taala loolu mooy texe àdduna texe àllaaxira nag mooy nga ñëw yàlla fay la nga dugg àjjana yàlla nañ ci yàlla boole yàlla mu ne texe na ki nga xam ne moom moo gëm mu mel nañ ko yàlla jàll ne ko ki gëm moom mooy kan mu ne allazina mooy ki nga xamante ne hum fi salaatihim xaashi'uun moom buy julli soo ko gisee muy julli da ngay gis ne kii noonu mu ngi toroxlu dëggantaan wàccee boppam suufeel boppam xam ne yàlla jàkkaar lool bu laajee mu jooy ci biir julli gi sax day jooy ci biir julli gi ngir toroxlu loolu mooy premier ponk premier point bi ñu ko nee bi ñu ko nee kan mooy ki gëm mu ne allazina mooy ñi nga xamante ne hum fi salaatihim xaashi'uun dañu am xushu fi salaa moo tax nit ki buy julli warul julli julli parax parax di ko pëtam pëtamee du am xushu mënul nekk julli bi da nga koy teewlu di ko defee nànk par nànk taxaw bi nga taxaw ba yëg ne taxaw nga booy rukkoo nga ba yëg ni rukkoo nga boo siggee ba yëg ni siggi nga baat yi ngay wax nga fexe xam baat yi yan baat la booy jàng faatixa nga fexe xam faatixa lu muy firi su ko defee booy koy jàng moom nga ji def nga ji def nga ji def fikr di di xam li ngay jàng mooy lan boo ne subhaana rabbil ala nga xam loolu lu muy firi subhaana rabbil azim nga xam lu muy firi booy taaya nga xam taaya bi lu muy firi concentration boobu noonu nga xam ne li ngay wax xam nga ko daf lay gën a may nga bokk ci li nga xam ne mooy julli gi su ko defee boo tolloo ci point boo xam ne bu sensible la nga xam ne lii ëpp na sa ëpp na sa doole bu laajee jooy sax jooyal kon lii la nit ki di amee ak xusu fi sala yàlla mu ne point bi njëkk moom mooy ki gëm yàlla buy julli dafay toroxlu ci li nga xam ne moom mooy julli bi ñaareel bi wallazina hum anil lahwi muridun ñoom duñu nekk fu caaxaan am fu caaxaan am caaxaan ñun ñëpp xam nañ ko caaxaan mooy mooy jotaayu seytaan mun nañ fi tudd ay place yoo xam ne tey dañ koo jox valeur parce que yonti saa waxoon mu xam mu jum jamono dañuy jël li gën a néew valeur jox ko valeur li amul valeur ñu suufeel ko tey lu mel ni làmb bi ñu jël teg ko boo waxee ñu ne lu ñun ñoo ko moom suñu culture di ko bàkkoo waaye ñun ñun islam moo fi cosaan de fii Sénégal du ceddo moo fi cosaan léeg-léeg nga dégg ku naan suñu maam ay ceddo lañ loolu du dëgg islam moo fi cosaan fii dafa dem ba benn instant kay tubaab bi ñëw faagaagal fii ñëpp ñi nga xamante ne ñoo doon résister ñi mu kii leen instauré lu mu bëgg waaye li fi cosaanu fii Sénégal xam ne seen bind lettre bu ñu ko doon bind sax en arabe lañ ko doon bindee date bii ñu nga tuddee ñu tuddee weeru olof weeru weeru jullit yi la moom lañ tuddee woon weeru olof boo xoolee suñu làkk àllarba ajjuma yooyu yëpp dafa méngoog olof dafa dafa méngoog arab ci olof ni ñu koy waxee kon suñu cosaan fii diine la woon duñu ay ceddo kon ñun culture bu ñu war a gën a bàkkoo mooy culture islamique la ñu war a bàkkoo parce que moom la suñu mag yi nekkoon kon yi ñu tuddee caaxaan léegi bëgguñu ko jox ay làmbak ay football ak ay tànn béer ak ay yu kenn xamul yàlla nee na ki gëm yàlla doo ko fekk ci yooyu moom da koy détourné koñ bi bu ko wóoroon ne dañ fi teg ay musique ak yu kenn xamul moom da koy jaral du jaar ci koñ bi day contourné koñ bi wala bu fa jaaree fii rek moo fi sës il faut mu jaar fa bu fay jaar du fa jaar jaaru ñàkk fayda dafay jaar ak ful la dëgg ay tànkam dox génn romb li nga xamante ne moom mooy caaxaan bi kon loolu mooy wallazina hum allazina hum anil lahwi muridun ñaareel point bi mu ne allazina hum li zakatihim faailun ñoom de dañuy joxe seen azaka dañ koy matal duñ ko cëkkal tolloo nga som boo xam ne ñu ne kii bu tolloo som bi dafay génne azaka ñoom duñ ci lam-lame dañ koy génne saasi ba pare génnee ko ci niñ ko war a génne wi allazina hum li zakatihim faailun yàlla ne wallazina hum li furujihim xaafizun bi moom moo tumranke léegi te yonent bi avertiroon nañ ko nee na mujjum jamono njaaloo bi dana xadar day dem ba sax nit ñi da dañuy njaaloo nga leen di romb naan puusal ma jàll ngir ñu ngi njaaloo sa kanam loolu waxin la tey internet bi moo ñu ko justifier surtout Sénégal bi nga xam ne sécuriser wuñ internet bi da ngay ubbi alxuraan di ko jàng sax ñu jékki-jékki la lancé la benn publication boo xam ne pornographique la mënoo ci dara application bi ma yor nii kaamil alxuraan la mais da ngay boo boo désactivé wul internet bi ni ngay jàng-jàng ba mu yàgg rek ñu sànni la benn publication pornographique mooy yoon saa salaam waxoon na ne di ngeen dem ba caaxa ba njaaloo day nekk nii seen suufu tànk ba ñuy njaaloo da nga leen naan puusal pour ma mën a jàll mooy tey li ñuy dund tey léegi njaaloo comme ndox booy naan doomu njaaloo yi moom amul problème dañ leen di ngénteel siiwal leen ki nga xam ne moom lañ ko def sax mu waroon am gàcce boo xamante ne comme dëkk bi duñu duñu attewoo charia mu làqatu waaye tey dañ koy sax fësal loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund léegi suñu jamono yonent bi nee na ñi nga xamante ne gëm nañu yàlla mooy ñi nga xamante ne wallazina hum li furujihim xaafisun ñoom de seen pëy dañ koy téye duñu sëyëg ku ñu warul a sëyal mu mel ne dañ koo laaj ñi nga war a sëyal sëyal mooy ñan mu ne mooy ñi nga xamante ne illa ala azwajihim seeni soxna ki nga xam ne moom da nga ñëw joxe can kooku sa soxna la am nga droit nga sëyeg moom aw maa malakat aymaanukum bii moom amatul mooy jaam bi nga xam ne moo possédé si yow guerre lañ demoon am ay captif ñu fa jàppoon ñu nekk ay jaam jaamu jigéen yooyu am nga droit nga sëyeg ñoom te léegi loolu islam daanaka abolir na ko kon nit ki kan la war a sëyal mooy ki nga xam ne mooy soxnaam bi nga xam ne moom la yëkkati can jox mu mel ne dañ ko laaj ba léegi ci wàllu sëy boobu noonu mu ne fa man itawara a zalika fa ulaayika humul aadun képp koo xamante ne nii jéem na transgressé ci limites yi ko yàlla limitel mooy daf fi bàyyi soxnaam dem ci génn jël jigéen boo xam ne jigéenam sëy ak moom nga xam ne kooku transgresseur la nga xam ne kooku tooñkat gën koo màgg gënu moo gën a nekk tooñkat gi bi gën a mag ci tooñkat yi ba wàcc fa sa soxna ci kër gi gën dem jël beneen jigéen boo xam ne du sa soxna nga dem sëy ak moom kon lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy mandarga bi nga xam ne mooy ki gëm yàlla mu ne ba léegi ki nga xam ne mooy ki gëm yàlla mu ne wala zinahum li amaanaatihim faa'ilun ñoom seeni dénkaane dañu nekk ñoo xam ne ñu wóor lañu soo leen dénkee dara comme par exemple ma ñëwoon fekk sama papa ne ko am teel ma 10 000 yi du ne xaaral ma jël 10 000 bi fajee ko sama soxla bu ñëwee dinaa ko joxaat beneen 10 000 déedéet numéro 10 000 bi nga ko joxe boo ñëwee boobu la lay delloowaat mooy yoon saasal bu ñu ñëwaan jox ko benn dénkaane benn bërigo dugub wala nangam bu la nee teg ko fee nga muur ko yow yaa koy ñëw muurilaat sa bopp moom du fa dem di xool sax lan la wala lan la kon bokk na ci mandarga gi gëm mooy bu ñu la dénkee da ngay nekk koo xam ne ku wóor la da ngay sàmm li nga xam ne moom lañ la dénk waaye tamit booy seede da ngay seede dëgg doo seede caaxaan doo seede ngir sa bànneexu bakken diw tuumaal nañ ko kaay nga seede nga xool sa digganteeg sa ban sa bànneexu bakken wala xaalis bi ñu lay jox wala wala wala wala da nga ragal donte dañ la dig rey sax waxal dëgg bi seedeel dëgg ñu rendi la kon mandarga ki gëm yàlla dafay nekk koo xam ne ku wóor lay doon buñ ko dénkee dafay sàmm dénkaane bi waaye tam buy seede tamit lu wóor lay seede xoola yàlla mu ngi ko commencé woon mandarga bi si julli ñuy torox lu julli mu ngi ko jeexalee waat ci julli moo lay wane ne sikki yi ñu wax ci diggante bi jikko yi ñu wax ci diggante bi nit ku suy julli dafay mucc ci yooyu moom la yàlla tënkee ci benn aaya inna salaata tanha anil faxshaayi war munkar julli daf lay jëlee ci ñaawteef ak bàkkaar nit ki bu to bu amee xusuu fi salaa li ñu wax ci diggante bi yëpp dafay yomb pour moom moo tax mu jeexalee ko ne wallazina hum ala salaatihim yu xaafizun ñoom bu ñuy julli dañuy taxaw seetlu julli bi mooy maanaam benn dinañu bàyyi xel ci waxtu bi fu ñu jullee tisbaar ñu ngi xalaat tàkkusaan fu ñu jullee tàkkusaan ñu ngi ñu ngi xalaat timis waaye bépp ponk boo xam ne julli laaj na ko dañ ciy assidu dañ koy def ba mu mat du ñu rukkoo rukkoowu nu leen neexee bu ñu rukkoo dañuy rukkoo ni ko yonent bi jàngale bu ñuy sujjóot dañuy sujjóot sujjóot yu mat bu ñuy taxaw dañuy taxaw taxaw yu yu yu baax ñu ne ñii ñooy ñi nga xamante ne nii moom mooy ñi nga xam ne ñu gëm yàlla yàlla nee na ulaayika humul waarisuun ñoom dañooy ñi nga xamante ne mooy ñiy donn àjjana donn nag bu ñu ko waxee mooy dugg àjjana bu yomb comme xale boo xam ne doon na ay waajuram doon na alal bu bëri liggéeyu ko ñaq ko deful lenn ñu ne ko rek sa papa mu amoon gaañu na yaa ko doon yonent bi nee na yii bu nekkee ci moom nii lay amee àjjana dafay yomb ci moom mooy ulaayika humul waarisuun allazina yarisuuna al firdaws hum fiha xaalidun ñoom dañooy ñi nga xamante ñooy dëkkee àjjana te foofu la ñuy sax duñ fa génn mukk abadan yàlla ñu yàlla boole ci ñoom yàlla ñu yàlla defal ngëm dëggantaan aquli qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum sal muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ba léegi mu ne innamal muminuuna ñi nga xamante ne mooy ñi gëm allazina mooy ñi nga xamante ne isa zukira allahu wajalat qulubihim ñoom boo leen fàttalee yàlla rek wala nga jàng alquran seen wet rek wajalat qulubuhum da ngay gis seen xol yi dafay tooy seen xol yi day dundaat wa isa tulet alayhim ayatuhu zaadatuhum imana boo leen jàngal alquran di jàng alquran seen ngëm bi dafay gën a yokk foofu lu ñu fay dégg mooy ndekete ngëm day yéeg di wàcc iman dafay wàcc ba féete suuf nit ki di bàkkaar boo koy waar sax du la dégg waaye tamit noonu la koy chargé ba mu yéeg bokk na si liy chargé ngëm am na programme buy waaj a ñëw incha allah yàggul dara ñu ngi ci weeru rajab muy weeru koor dafay chargé xëy na xutba yi ñëw sax moom lañ koy préparé duñu bàyyi ba weeru koor gi ñëw ñu ciy wax dañ koy teel a préparé incha allah ndax événement bu màgg événement gënul màgg weeru koor su ko defee bu ñuy jàng alquran dafay yéegal li nga xam ne moom mooy ngëma isa tulet alayhim ayatu zaadat imaana mu ne wa ala rabbihim yatawakkaluun ñoom de ci yàlla la ñuy wakkirlu loo leen munti wax boo leen doon tëkk gi fii ba suba xasbunallah wax ni mal wakil lañ lay wax ñoom yàlla daf leen doy sëkk ñoom ñi gëm wa ala rabbihim yatawakkaluun mu ne allazina yuqimuuna salaa gis nga julli bi mu doon wax si si saar bee indiwaat nag mu ne dañuy taxawal julli wa mimma razaqnaahum yunfiquun gis nga mu indiwaat azaka li leen yàlla wërsëgal dañ ciy joxe lu mu ji teg mu ne ulaayika hum muminuuna xaqaa ñii de ñoom ñooy ñi gëm dëggantaan kon yàlla gis nga ni muy def nirelee gëm kon nekkete gëm yàlla nekkul taxaw fëgg sa dënn man damaa ngëm déedéet nekkete ay jëf la bu ci njëkk moom mooy que ne bu buñ lay tuddal yàlla da ngay gis ne da ngay da ngay da sa xol day tooy buñ bu ñuy jàng alxuraan sa sa ngëm di yéeg waaye yàlla rek nga wakkirlu wante li nga xamante ne moom mooy da ngay taxawal julli da ngay joxe li nga xamante ne moom moo moom mooy azaka yàlla nee na ñooñ ñooy ñi nga xam ne mooy ñi gëm dëggantaan kon nañ taxaw ci point yooyu tamit doomu ndey mbokk jullit mu mel ne kon nit ki war naa mën a taxaw situé léegi ngëmam am na benn point boo xamante ne foofu la ñuy jeexalee yow mën na nit ki xam ne ndax moom am na ngëm wala amul ngëm wala ndax ngëmam mu ngi traîné wala ngëmam traîné wul mooy lan mooy julli fajar nit ki bu buggee natt boppam ndax ngëmam instant yi mu ngi au top wala naafeq moo nekk ci xolam na ko nattee ci julli fajar fajar naafiq rek moo ko mënul julli su fekkente ne nit ki xool na julli fajar mu ngi koy yeew bu déggee ay yàlla solaa yamu ci mu dégg asolaatu xayru mina naw mu ne bëreeg jug dem jàpp ji respecté ko dem jàkka ja fekkee takbirul ixram mooy kàbbar bu njëkk bu imam allahu akbar mu ngi koy respecté di ko def nga xam ne kooku ngëm mu ngi ci moom waaye bu fekkente ne daf ko délaissé nag nga xam ne wàcc na ngëm kon foofu nattukaay la boo xamante ne nit ki mën na fa natt ngëmam julli fajar dama koy dénk sam bopp di leen ko dénk ku bëgg natt ngëmam fu mu toll rek na xool boppam nan la mel ci julli fajar bu fekkente ne respecté na ko na xam ne ngëmam mu ngi au top mais ngëm bu faible mënul julli fajar kon su ko defee ban ban médicament moo baax pour nit ki defaraat ngëmam moom mooy que ne nay jàng alxuraan lu bari su ko mënul jàng na koy déglu bu mu yem ci di ko déglu kese waaye na fexe xam contenu bi lan la li muy déglu nii lan lay wax. ci làkk bi mu dégg su ko defee ci lay xam valeur alxuraan xam fan lay taxaw loolu mooy nekk li nga xam ne mooy dundaat li nga xam ne moom mooy xolam yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوم إلى صلاتكم يرحمكم الله